ne ñëw ngir nemmeeku jumaa ji nga xam ne ñun bokki taaliba yépp ñoo fi ñëw ngir defal ko Serigne Touba. ne bi ñu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi moo am ab diir waaye yàggul noonu nag fa tabaarakallah tey ñu fas yéene koy inauguré. ne ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacké ne ñu nekk ci nag ne amoon nay plan yu bari ne ba Serigne Saliou ne mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan ñu yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay morom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti nee sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi nee jumaa nee comme niñ ko waxe nee jullit yëpp ñoo ko bokk nee du murid yi rek ñoo ko moom de nee waaye nag yàlla dafa dogal dañ koo jagleel maam Cheikh Ahmad Bamba nee moom mi nga xam ne moom la ñu gëm nee man nag maa ngi gërëm yàlla nee ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk. nee may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bii nga xam ne moom la ñu war a yu na gërëm Masaalikul Jinaan nee xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na. mais ñun taalibe daal ñoo ngi taxaw buñ ci amee dara lu ñu war a jubbanti nga wax ñu ko rek ñu taxaw ci. nee ndax kat ñun sa bànneex rek la wut ak lu baax lu rafet nee ak lu mengo ak bëgg-bëgg maam Cheikh Ahmad Bamba nee amul lu rafet. nee ba weesu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa nee weesu maam Cheikh Ahmad Bamba nee moo tax ñun bokki taalibe yi lépp lu ñu def rek xeeb nañ ko nee maa ngi lay wax bisimila nee ndax yow yaa wax ne nee man maa war a dalal gan ñi nee yaa ko wax de nee looloo tax tey Mbàkke ma di la dalal nee di bal dalal sama mbokki taaliba yëpp nee di leen xamal ne nee lañu ci bëggoon nee muy jumaa ju doon jumaa ju mucc ayib nee nga xam ne bu ñuy lim jumaay rafet yi ci àdduna bi nee ñu limaale ko Masaalikul Jinaan nee sëriñ bi tey nag awma ma daara lu may wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm it ñi nga fi wuutu nee ndax ñoom ñëpp dañ ma jàppale woon encouragé ma nee ngir ma sottal ko nee damay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñëpp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride. ne war nañoo am sag bu day ni Masaalikul Jinaan ne bi ñu defaree loo xam ne. ne muy néegu yàlla. ne mu mucc ayib nag. mais incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jógee ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul Jinaan ne ndax ay nit ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ne ani ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askan murit ñun ñi nga xam ñooy yoon bi ñun ñëpp war nañu am fierté ci Masaalikul Jinaan ne man nag lëpp lu ma defal Serigne Touba ne ak lépp lu ma defal Touba it xem naa ko ne xem naa ko ne bu yàlla dimbale ba nga noppalu ne dinaa la nuyu si ne wax la yeneeni xalaat yoo xam ne ne yaakaar naan dina baax ci Touba nee te dina baax ci yoon wi nee loolu boo ma ci joxe ndigal rek nee ma jublu ci loolu nee yàlla na yéex ba ma wuy sama borom nee man loolu rek laa jàpp ne ab taalibe laa rek bu war a dox ci yoon wi nee ngir rek ngir bëgg am ngërëmal sëriñ Bamba. sëriñ bi nee na mi ngi lay dool lee sant bu baax di la gërëm. ci nim la ko daan waxee naka jekk ndax yow président sëriñ bi nee na xam nga li nga séq ak yoonu murit xam na li nga jàpp sa diggante ak sëriñ Touba ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon sëriñ bi dafa wax ne mu ne na sa xel dal bu baax ndax sëriñ Tuuba dafa waxoon ne an na man waasala nii laa laa laa yu xari duni fa inna yakunu mi innal muxarabina wa anna man wasalina li dunya faxat fa inna allaha yukrimuhu maa daama xayuko nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te aduna taxulaa jug suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jóg suñ borom dana la teral sa giirug dund mu ne kon képp ku yaakaar sëriñ Tuuba na nanga xam ne suñ borom dana la teral sa giirug dund nee na kon mi ngi lay fàttali lam la waxoon rek ba nga ñëwee Tuuba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xam ne jëfal nga ko yoonu murit te ñëpp xam ko muy loo xam ne moom da koy fàttali mu ne ta wax na la ko keroog mu ne kon loolu na xam ne du ko fàtte ñi ko séqalit duñ ko fàtte kon cant rek la la ameel ak ngërëm ak di la ñaanal mu ne ñaan giit mooy suñ borom dëgëral gën laa dëgëral kàttanal gën a dolli sag nga gën a wéttali réew mi lu yàgg ndax loolu bëgg-bëggam la nee na itam mu ne la nga ko waxoon bi campagne bi jub mu ne dégg na ko bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mu ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu ta dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war la sa diggante ak moom nee na mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën dina ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkk lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi jëf ko ci réew mi ndax lépp looy jëfal réew mi bu dil Tuubaa it cant gi war na ko ndax sëriñ Saaliw bi mu fi toogee màggalu Tuubaa ga njëkk a jàll ba gàmbug Tiwaawoon agsee dafa yénn ci ndaw ne lépp loo defal Touba na nga ko fa def mu kon loo defal réew mi rek moom nga ko defal te réew mi sa jëf ñëpp gis nañ ko kenn fàttewu ko jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah